بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي حسن إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العزيز nuyu ñëpp ñi nga xam ne ñoo teew ci mbooloo mii ku ci nekk ci turam ak ci santam di nuyu ñi nga xam ne ñoom ñoo ñu dalal muy waa amoo tefes ndaxte nag bi ñu yegsee ba léegi gis nañ ni euh, teraanga Sénégal bi euh, fii moom kenn werantewul ne law na fi fii ci amoo tefes di nuyu kilifa yin fi fekk yëpp di doore ci ki nga xamni mo nu dalal muy procureur Aliou Ndaw nga xamni ni kilifa gu nu respect la ci Sénégal muy denc ko xamne ne ku ñu la muy soxna ndey Diop mi nga xam moy jité jiite jigéenu ànd sàmm jikko yi nga xam xex bu and sam jikko yi def rek fess na ci mom soxna ndey Diop mo and ak ñu bari ñun ci mëna a mënañ ci lim soxna Adama Kane nga xam ni ay jigéen ñu man goor lañ kon nak yeen jigenu and sam ji koy su ngeen jele sen tem bu tol ni sen xel dajul ken ku dul dàmbuj ngeen ni bu ngeen sañon mom moy def waxtan wi lolou re re la ci man ma ngi len ci sante di len ci gërëm di ci nak wa and sam ji koy ndax te leer na mané nam yeen jigen ñi yeenay doxal li jëm ci walu jigen ñi lepp lu ngeen ci def waxtan ngeen ci ak sunu coordonnateur national ababakar mbub waxtaan ngeen ci ak sëñ Adama Mbuub mi nga xam ni ku tudd ànd sàmm ji koy tudd ko kon ñoom it maa ngi leen di gërëm ci loolu di gërëm imaam yi ma fi fekk yépp di gërëm chef de quartier bi di gërëm kilifi kilifa yi fi teew yépp di gërëm nag kon li nga xam ni comme temps bi doyul xëy na duñu mën a yàgg lool ci gërëmaate bi mais suñ nee soxna Ndey Jóob ak soxna aadama Kane mën nañoo yóbbaale jigéen ñëpp ak délégation yëpp ak daayira yi fi daje yëpp ak association jigéen yi fi daje yëpp ak kilifa yi fi daje yëpp bi ñu jógee ci loolu nag ñu ñëw ci li nga xam ne moom mooy waxtaan wi nga xam ne thème bi ñu tànn mooy waxtaane li ñuy tuddee éducation muy jàng ak li mu làmbool muy enjeu ci tubaab ak li nga xam moy orientation yi mooy jubluwaay yi lan mooy yu njangum Senegal. kon lolu moy tem bi nga xam yeen yéen and sam sàmm jikko yi yena ko tan pour tay ji ma ñew waxtane lolu wax len ci sama xalaat ak sama gis-gis ak yan ñaax la len ci ñaax ak lan la gëm ni yeen mo wara nek sen taxaway ci lolu ngeen sakku pour ñu waxtane ko tay kon jangum Senegal bo wak. wax da ngay déparé ci lu mu gàtt gàtt ci li nga xam ne ñun ñëpp xam nañ ko mooy bu ñu déparé ci li nga xam ne si moom mooy xew ci àdduna bi yëpp ak diine boo mën a jël dañ naan góor mooy tabax kër waaye jigéen mooy yor kër maanaam anglais yi dañ naan men build houses but women make homes mooy lan moy góor moy tabax keur gi waye lay tax keur gi ñong lay tax keur gi bax lay tax ña nek ci keur ga mana teunku ci lu bax lolu jigen moko kon nak yeen jigen ni su ngeen taxawé taxawayu sam jikko yi taxawayu defar askan wi kon yeen taxaw ngeen fi nga xam mom la leen yalla subhanahu wa taala taxaw lo kon lolu bu ngeen ci taxawé da leen ci sante di leen ci gëna ñaax di leen wax ni yéen jigéen ñi bu askan wi baaxee yéen la baaxal su bonee yéen la bonal ndaxte naam comme équipe bu football bu match bi bu nu gañee ñu ni joueur yee aay bu ñu ñàkkee ñu ne entraîneur bi xamul dara yéen it bu góor bu bu bu ci kër gi bu xale tekkee ñu ni bàyyi baayam ndaxte bàyyi moo yore barke bu bonee ñu ni yaay ja kon injustice boobu du tee ngeen xam li nga xam ne moom mooy seen cër mooy taxaw ngir jikko koy baax parce que am sa doom bëgg nga mu baax te bu xale juddoo ca hôpital ba nit juddu na waaye pour mu nite fokk ñu jàngal ko nit juddu na ca hôpital ñu fétal ko bàyyi ko ca li ko neex bu màggee ku ko gis xam ne kii kenn yaru ko kon nag kenn mënta wax yar te waxoo jàngale parce que koo yar danga koy won nu muy waxe nu muy tooge nu muy gisee nu muy euh, euh, jëflanteeg nit ñi loolu mooy jàngale waa jàngale moom nag suñuy mag dañ ko fee mos a def même ba diine lawagul suñuy mag danoo mos a tàggat seen njaboot ci ay valeur tàggat leen ci jikko yu baax loolu moo mos a am islaam ñëw dëggal loolu sunu sang bu tedd bi won ñu nan lañu ñu war a jaamoo yàlla subhaanahu wa mu jox ñu nak sunu alcorane muy sunu kiirlaay yi nga xamne lepp lépp lu ñuy def ci lañ koy sukkandiku wa léegi nak ay tubab nek ca France créé lu ñuy tuddee la troisième république en 1875 ñu am lu ñu tuddee une troisième république 3 troisième république bobu fekkon fa ab diiné bu tudd église catholique manam diiné chrétienne mo fa nekkon en France bi ñuy créé 3 troisième république ñu ni diiné ji nga xam da jël nit ñi ñuy dem ay église ñew di gëm yalla di dawal ay ay ngëm-ngëm ñi kat nan fexé ba leen bu li ñuy république. ñu né kon sen république dañ koy sukkandiku ci laïcité lan moy laïcité bu mu la France la France en 1875 fal ab ministre de l'éducation bu tuddu Jules Ferry bi ko falee en 1879 def ko ministre de l'Instruction publique manam ministre bi nga xam si moo yore wàllum njàng mi ba noppi nag jox ko commission ne ko fexel ba diine bu mu ñu fexé ba fagagal église ba ci France ba diine bokkatul ci dara ñu tuddee ko la troisième république contre l'église, parce que nee église moy diine té diine day tax li nga bëgg def ci nit ki do ci lo xamné safa nono ak ngëm-ngëm

nañ leen def ñoo xam ne même bu ñu gëmee diine nañ nekk ñoo xam dañ naan man je suis catholique non pratiquant bu ñuy doxal diine ji bu ñuy bu ñuy doxal seen diine nañ toog ci ay ruq di ko fa doxale waaye ni réew mi di doxe seen yoon nekku ci ñoom ndax noo am diine loola nag ba ñu ko réussiree France ñu coloniser nag ay ñu dem nag wuti ay réew yuñ coloniser pour lawal loolu ñu ñëw fekk fi ay buur di xeex ak ñoom xeex ak ñoom Lat Joor Ngoone Latiir Jóob xeex ak ñoom Sàmba Lawbe xeex ak ñoom Alburi xeex ak ñoom Buur Siin xeex ak ñoom xeex ak ñoom mënuñ leen de waaye ëpp leen ay moyens ci wàllu militaire ëpp leen ay canon ba rey leen faagagal leen sunu sang yu tedd ya euh, euh, Cheikh Ahmadou Bamba El Hadj ak ñu mel ne ñoom taxaw ñoom xeex xeexu pas-pas ak ñoom xam ne ñii du du ci ay du ci ay canon nga leen di gañee mais da ngay njëkk ci say nit ku ci na samp sa daara di jàngal ay nit di leen samp pour diine ji yaatu nii lañ xeex ak ñoom

bu coow li bare nag ñu naxanteeg ñoom leen leen jox dara bu ñu amee ñu dem leen bu école bi bu fa kenn parce que su diine njëkkee ci ñoom kenn leen a kon nañ beddi ko laïcité ba tax tax tey ay nit ñu ay ay de layal ni état Sénégal c'est un état laïque te lan état état alors que ñun way ngëm ñun ay jullit ñu gëm ni fii yàlla subhaanahu wa taala mi ñu sàkk daf ñu digal lépp lu ñuy def lan la ci diine wax nga def ko na ko diine waxe te yow doo wax sa waxi bopp ñu ne léegi diine du ci bokk alors que àdduna bi amul loo fii def loo xam ne diine bokku ci lépp looy def da nga war a xool lan la ci sa diine wax léegi nag ñu am école boo xam ne dañuy diine kenn du ko fa jàngale kenn du ko boole ci dara diine bokkul parce que dañ ni bo dugalee diine comme ni ko waxee sank da ngay yak république bi parce que république bi ni mi doxé comme day wax na ku nek def lu ko neex na ku nek am say gis-gisu bop gis-gisu yalla ñun suñu yoon nekku ci parce que gëm ñu yalla kon ñu ni buñ ci dugalee yalla ñom lañ bëgg def duñ ko mëna def li nak mom lañ doxal en France les lois Jules Ferry Sénégal ñëw teunku ci ñu am école bi nga xamni dañuy am deux systèmes éducatifs yu bokul moy dañuy am daara bo xam dañuy tënku ci seen ba nopi am école Jules Ferry moy franc-maçon bo xam ma nga ca France lawal ko France ba nopi ray église ba ba nopi ñew Sénégal euh, euh, am permission pour ray diine islam franc-maçon bobu mom mooy moy mamu loi yi nu voté te école bii ñu yore ñun senegal bi nga xam ne ëpp ci suñuy doom fan la ñuy jànge nga xam ne sénégalais yi ñu ëpp ci ñoom comme ni ma koy tooñ ci ñi ma ko sañ wax dañuy kañe seen bopp que sama doom bi muy am 6 ans moom mën naa làkk français léegi sax dañ cee teg mën naa làkk anglais waaye kenn du la ci ni wàcc na alxuraan kon nag ñi naan ñoom dañuy xam ne école boobu du école bi nu war a yóbbu seeni doom école bi nga war a yóbbu sa doom mooy te di ko gañe sa bopp mooy école bi nga xam diine day njëkk ci sa doom école bii nu yore day xeex diine école bii nu yore day fetal suñuy doom école école bii nu yore jàngalewul ay valeur école bii nu yore day xeex diine école bii nu yore dañoo bëgg ku fay génne yow diine da nga koy cof waaye comme ni ma koy waxee danga nga koy sëlmoo waaye doo ko naan diine ji da nga koy sëlmoo waaye doo ko naan bu ko defee li nga xamni mom am ci sunu école lolu moy law di law depuis la troisième république fi ci Sénégal comme comme na na diné na diné église bi déwé en France diné catholique niñ ko rayé en France lolu lañu de def fi Sénégal ba nga xamni diné islam aussi dañuy fexé ba du am doolé ba nga xam xalé yi bo 4 millions 500 les 4 millions 400 ñi ngi jàng ci école Jules Ferry bi école bobu ma leen wax né France moko fi indi imposé ko bu ci kenn Bolé diiné école ba nga xam dafa duggal diiné ñu ko ba nga xam bi ci école diiné bi Manam jàngé ci alcorane jaar ci ay franco jàng diiné bu dañ koy ni réew parce que bu leen dañ ne nañ ci ni réew mi doxé kon bu gis nga année yii yëpp yéen a ngi Sénégal di am ay xale yoo xam ne ba ci bërki démb soxna Ndate bi mu demee ci concours international bi ñu ne Sénégal moo jël raaye bu njëkk ji xam nga loolu ndam la ci Sénégal ñu ne réewu jullit yi daje nañ Sénégal présenté ay ndoomam ñu jàngale leen alxuraan fii ci Sénégal ñu dem raw te c'est pas la première fois mais ñooñee raw bu ñu rawee ba pare bu ñëwee ci biir société bi comme diine dañ ko beddi ñoom du bokk. soxna Ndate moom la muy mujje d'ailleurs li koy wone ki gañe woon daaw concours Sénico bi actuellement dem naa ci école bi muy jànge ma ngay dem di jàngi français xam nga lu ko waral parce que dafa jàng alxuraan ba pare bëgg nag ñëw bokk ci réew mi liggéey tekki fi ñu ne ko yow li nga jàng bokkul parce que état laïque lañu yore soxna yi est-ce que lii war na continuer est-ce que lii war nañ ko continuer di seetaan ci sunum réew xale bi nga xam ne moom jàng na diine ñu jàngal ko alxuraan jàngal jaar jàngal ko jaar jaar yonent bi sallallahu alayhi def ci moom ay di jikko yu baax ñu ne ko yow boo demee ba am 18 ans puisque yow nangu woo woon a ñëw ci tënku école Jules Ferry bi nga xam si école franc-maçon la comme franc-maçon mooy doxal réew mi te république bi république bi xeex diine la te yow diine nga jàngi woon léegi boo ñëwee dama toogee nee yow réew mi mënoo cee bokk lii mooy jafe-jafe senegal waaw léegi kon jotul ñu am sunu école boo xam ne daanal jàngal suñuy doom seen diine jàngal leen eh, alxuraan jàngal leen kan mooy yant bi sallallahu alayhi jàngal leen suñuy mag ñu baax ak li ñu bind te du tee ñu jàngal leen liy daw ci àdduna ba bu bu ñu paree du ñu dépayser loolu mën naa nekk ay réew ñu ngi koy def actuellement Sénégal gii rek ñu nekk am na ay école publique yu fi ne ay privé yu fi nekk yoo xam ne ñu ngi jiital njàngum alxuraan boo xam ne benn problème amu ci xale yi daan jàng alxuraan daan jàng jaar-jaar yonent bi sallallahu alayhi wasallam daan jàng li mag ñi bind ba noppi xale yooyu daan jàng anglais daan jàng histoire géo daan jàng science daan jàng technologie daan jàng mathématique te bu seeni moroom taxawee ñu taxaw duñ leen duñ leen mag ci at lu koy waral mooy dañuy réformer ñoom seen programme mooy lan au lieu école Jules Ferry bi di la defloo juróom-benni at parce que boo nee jafe-jafe am na da ngay wax solution ñun dañoo am ay solution ci loolu maanaam xale bi mën na jàng diineem te bu paree bu amee 18 ans day jàng la moroomam yi doon jàng ci école Jules Ferry bi mais xam la mooy avantage bi su diine njëkkee ci xale bi kenn dootu ko mën a këf parce que alxuraan xale bu mu jëkk ci dënnam dootul neex a këf loolu lañ bëgg moo tax bëgguñu alxuraan yaatu moo tax bëgguñu diine yaatu ci école bi léegi nag ñun li ñu bëgg mooy école boo xam ni dañuy jiitu ci suñuy xale duñu leen fétal mooy lan xale bi su amee juróom-benni at ñu dalal ko ci ecole boo xam ni ñun Sénégal ñoo koy moom parce que suñu budget la sunu xaalis la ñu dalal ko ci école boo xam ne bu yegsee dañ koy dalal baa dalal ko ci alxuraan mu génn ci alxuraan tari alxuraan ci ñetti at maximum ñeenti at mu def CI def CP de tëb tëb tëb ay classe def trois ans ci école élémentaire bi du soxla juróom-benn at ndaxte alxuraan moo am doole jooju école privée yi ko def yépp ñu ngi def ay résultats xale bi su demee def ñetti at alxuraan su paree su defee ñetti at alxuraan li muy jàng ci élémentaire bi ci yi ba CM2 ci juróom-benni at yi ci ñetti at la koy jàng parce que alxuraan moo gaawal jàngu xale xale bi alxuraan njëkk ci moom buy jàng mooy gën a gaaw xale bi ko amul wala bu ko defee au lieu muy def juróom-benni at xale boobu day def ñetti at am entrée en sixième xale boobu niveau boobu mu am bu demee BFEM dañuy réformer programme bi ba xale bi du fa def ñeenti at ñetti at la su au lycée au lieu mu def ñetti at ñaari at la fay def si bien que xale boobu mooy gën jeune deuxièmement buy am mën à 16 ans maximum te dafa am lu ay waajuram gagné moom mu gagné ko mooy dafa jàng alxuraan dafa jàng diineem te xale boobu su amee loolu ëllëg li nu ci mi day jeex mooy lan xale bi nu jiital ci moom xale boobu buñ ko bëggee bu dee xale bu jigéen la bu demee ba am 19 ans wala 20 ans. même bu yaayam ak ak papaam amul lu mu ko dundee ba du añ du reer xale boobu du taxaw mukk ci mbedd mi jaay boppam ndaxte dafa am diine ju njëkk ci moom xale boobu bu doon reere sombi bus bu nekk wala amul greffage du dem mukk di jaay boppam parce que dafa jàpp ni bés ci dafa am te dafa war a jàkkaarloo ak yàlla subhaanahu wa taala loolu la ñuy gañe xale boobu su màggee ba nekk ministre wala mu nekk bu buñ ko nee tali bii cinq milliards moo koy def waaye bindal 10 milliards wala quinze milliards du ko nangoo def parce que day xalaat ni bés penc bu demee yàlla subhaanahu wa taala dina ni ko yow ba ngay nekk ministre des infrastructures au Sénégal andi nañ la fa ab contrat boo xam ni dañ la fukki milliards mooy coût bi mais tegloo nañ la ci juróomi milliards pour ñu séddoo ko ak yow lu tax nga séddoo ko est-ce que alal jooju sa alal la. donc loolu dinañ la ci mbugal ndaxte loolu xaalisu ger la te ger baaxul kon xale yi suñu lawee ci réew mi ñu jàngal leen système boobu dañuy xeex corruption dañuy xeex prostitution dañuy xeex euh, franc-maçonnerie dañuy xeex lépp li nga xam ne seen diine da leen koy tere kon léegi dangay lare li olof yoo xam man nag dama dégg wolof lare maanaam da ngay lare <laughs> lare mooy da ngay gañe fii ci àdduna gañe ci àllaaxira kon da nga mën a waajal sa doom boobu ba nga xam ne moom bu ëllëgee dana fii ci àdduna li moroom yi am dana ko mën a am ba nopp bu ëllëgee dana mën a am yaakaar ci yërmande yàlla subhaanahu wa taala parce que dundam gépp da koo consacré ci diineem da koo consacré ci jàng alxuraan parce que dañoo njëkk ci moom avant muy dugg ci système bi ñu mën koo këf moom dañ koo dañ koo rawale rawale googu nag ñu war a def suñuy doom actuellement mooy enjeu bi te actuellement Sénégal liggéeyu ci ba léegi nii école bi ñu yore

ñi fi gën a gudd fan actuellement bu buñ la nit nee génn na àdduna am na cent ans dañ naan waaw loolu moom jafe na léegi de kon te cent ak bis yu gaaw yi ñaari ajjuma ku nekk xalaatal rek buñ la nee tey la ajjuma bala moo fasaasa nga gisaat ne ajjuma ñëwaat na kon at yi dafa gaaw kon nag bu ñu xoolee loolu c'est dommage que nee woon naa nee woon naa temps bi du doy <laughs> nee nañ nee nañ temps bi doyul <laughs> mais euh, <laughs> waaw nee nañ dafa am ñu war a wax man bi ñu ma joxee thème bi nee naa leen leen rek moom ma ci metti mooy temps bi doy <laughs> xam nga man déjà comme ni ma ko ñu mbër di tooñee dàmbooj arrêté la dafa jafe même ci émission su ma journaliste yi ñaanee dama leen di wax non may ma rek ma daaneel te du ma daaneel mukk loolu lañ may xase di naan dàmbooj da naan may ma ma daaneel te du daaneel mukk mais euh, foofa duñ la jox temps bu doy moo tax ngay def pexe waaye soxna Ndeye Diop nee na ñetti minutes moo ma dese waaw kon nag damay gaaw tënk li may gaaw tënk mooy li ma li ma tëb nag lu bari la nar a doon c'est dommage mais damay ñëw rek ci li Sénégal tënku actuellement te yéen ngeen war koo xam yéen jigéen mi mooy Sénégal dafa tënku ci UNESCO li mu teg pour ñu jàngale ko xale yi àdduna bi yëpp d'abord premier problème mooy nga taxaw yow bokkoo ak nit ki diine bokkoo moom aada bokkoo ak moom cosaan nga ne xale yi àdduna bi yëpp war a bokk ñu leen di jàngale. waa loolu eh, soxna yi loolu day na waar di ñee ñoom lii leen gëm bii diine ñun ñu gëm diine islaam ñee am diine athée ñoom gëmuñu yàlla nga ni xale yooyu ñépp nañ bokk ni leen di jàngale waaw loolu mooy tappale bu njëkk bi léegi nag ñu créé ce qu'ils appellent de 4 li ngeen di dégg ñu koy tudd ñoom UNESCO ci turu ONU euh, euh, ñu ni dañoo am lu ñu tuddee ODD 4 lan mooy ODD 4 il faut ma leeral leen ko bala maa daaneel en français nan lañ ko waxee mooy assurer

ak jikko ju mën a wane ci école bi bu ko kenn beddi lan lañ bëgg a dëxañ ci loolu mooy soo amee ci école bi xale boo xam ne ngi wane affaire góor jigéen ñu ne góor jigéen bonul bu ko kenn beddi xam nga lu ca bëgg mooy xale boobu di wane mbiru góor jigéen nekk ci biir école bi lawal ngóor jigéen ci école bi bu ko defee xale yi muy jonjonteel da leen di wan ne man de góor laa mais sentiruma góor man jigéen laa sentir wala man de jigéen laa waaye yëguma daray góor séquma góor dara man jigéen rek laay waxal léegi nag ñu ne ko développé loolu yaatal ko ci école bi ba noppi nag ni eh loi yu réew yi fexe leen ba xale yooyu di wane ni ñoom ay góor jigéen lañ bu leen kenn betti loolu la ñuy tudd inclusion mooy bu kenn beddi kenn alors ko ñun li nu gëm mooy ku yore sa doom muy wane affaire góor jigéen dafa feebar dañ la ko war a delloo nga faj ko léegi nag ñu teg ca ca ODD 4 bi ñu ni et de qualité ba noppi njàng ma baax et des possibilités d'apprentissage tout au long de la vie Madame Adunam, yep mo mën a jàng bañ ci école kon nak li lañ tënku ñom. li leen ci intéressé mooy inclusion fu ngeen déggate yi terme jàpp termes. ko genre bu ngeen sen tapalé ñu ni genre égalité de genre équité de genre inclusion diversité identité de genre sans discrimination un monde sans discrimination vivre ensemble yii yëpp boo ko déggee rek mooy programme góor jigéen buñ bëgg a dugal ci biir école maanaam ñi nga xam ne ñoom minorité lañ lañ bëgg ñu bàyyi leen ñu lawal pour que majorité bi nekkul ay góor jigéen ñoom it wu ci góor jigéen wala ñu accepté góor jigéen wala ñu nekk ay góor jigéen lii mooy projet LGBT léegi nag falaay lay daaneel avant may ñëw ci li ma leen nar a ñaaxee yow soxna Ndey Jóob ak say jigéen waaw document bii ngeen gis document bii ngeen gis képp koy yaay war na xam ne mu ngi daw ci sunu réew document bi ngeen gis bii ma leen di won yéen yaay yi bii mooy document bi nga xam ne war ngeen koo xam parce que lii leen bëgg a dugal ci seen yi doom dafa am ab lël boo xam ne ñu ngi ko def le 3 juin deux ministre éducation bu Sénégal demoon na ca mise de l'enseignement supérieur bu Sénégal demoon na ca mu doon waajal sommet bi nga xam moo amoon ca New York

min de éducation nationale je leen di défier défier défié, nous nee défié, ne défié, ñu def débat ko dindi te wa taala rek parce que ñun gëm dañuy taxaw sétané, ñun Sénégal gis nga bu ma temps bu ma temps ba leen liñ ci Jules Ferry ñu jàngal xale yi ñu nuy sëye ci tout temps ñoo moom seen awra nañ sey heure bu leen neexee ku leen laal ñu tëj la ci kaso bi loolu lañ bëgg def seeni doom def leen ay góor jigéen ak ñoo xam ne dañuy jël seen awra def ci li ñu bëgg bu nekkee nekk ay góor ni sentiratuñ seen bopp ci góor ay jigéen lañ wala ñu nekk ay jigéen ne léegi sentiratuñ seen bopp jigéen ay góor lañ loolu lañ bëgg dugal ci éducation bi tudde ko l'éducation sexuelle complète lii mooy li nga xam moom la Sénégal diggee ca Nations Unies dara lii nag ku ci wax ñu diaboliser la lii nag ku ci wax ñu menacer la man yàgg nañ maa menacer comme ni ñuy menacer Ababacar Mboup comme ni ñuy menacer Adama Mboup comme ni ñuy ima menacer Imam Silla di ko menacer képp koo xam ni da taxaw ci aar suñuy doom aar suñuy tout tànk léegi nag fi may daaneel ndax temps bi doyul c'est dama leen di def ni may def journaliste yi damay damay damay daaneel te du ma daaneel mais léegi ñu nangu micro yi léegi ñu nangu micro yi mais bala bala ñoo nang micro yi dama bëgg ngeen xam ne am na ay association jigéen yu nekk Sénégal di def plaidoyer ñu tudde leen ay association féministe ñu def plaidoyer pour ñu def ce qu'on appelle gën a dooleel jigéen ñi loolu tax koo jóg li leen tax a jóg mooy ña leen di financer dañ leen a jox alal pour ñu lawal LGBT genre et inclusion lañ bëgg a lawal ci àdduna bi ñooñu ñooñu leen di financer bu ngeen seetaanee bu ngeen seetaanee ba lolo law bu ëllëgé daan def seeni doom ay goor jigen te du ngeen ci man dara motax may ñaax soxna fa lay daane la nak tay soxna ndey Diop ma ngi lay ñaax yow ak say jigen soxna Adama kan ma ngi leen di ñaax and leen ak seen jigen ñom buñ bu plaidoyer pour ñu lawal mbon yeen ngeen def plaidoyer pour saxal baax ngeen def plaidoyer pour ñu soppi njangum Sénégal pour ñu dugal ci diine islam pour ñu digal ci jaar-jaar yonent bi sallallahu pour dugal ci li sunu mag ñu baax ñu bind pour def suñuy doom ay ay jullit akkan ngir ëllëg yàlla mën a yërëm njaboot gi ñu mën a yërëm jullit ñi lii rek laa amoon lu ma ciy dolli maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp wasalaam